ak ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal laan ñu tribunalum ndakaaru ni ki démb daa na yëngu tribunal yëngu na ni ki démb yéenekaay gi de la turbine mu ñu xamal laan ñu waxuma la yëngu kay waaye tremblement de terre ci boppam ni ki démb moo amoon ca tribunalum ndakaaru journalub groupe promo consulting bi mu ñuy xamal naan ñu Samba Sow mi nga xamante ni moom la ñu tuumaal ne moo rey Fatoumata Makhtar Ndiaye ci atum 2016 ni ki démb dañu ko doon atte ci chambre criminelle waaye nag na fa ay kàddu kaddu yoo xamante ni kaddu yu doy waara doy waara yéen kaay gii di source am mu ñu ñu samba soo koy kaddu yi nga xam ne daal dina ko yëkkati ku amul fukki at ak juróom-ñett bul déglu moom sàmba sow la mu xam le nee na daal li tax mu rey Fatoumata Makhtar Ndiaye maanaam du mu tey dañu ko liggéey te ñi nga xamante ni daal maanaam ñoo yëngatu ci wàllum politique nekk ca Pikine bokkoon ak moom genn langue politique maanaam ñoo ko ko daal di defloo moom nag nee na sàmba sow tantam ji di fat sow ak Abdoulaye Timbo maire bu na ak député Awa Niane lépp lépp lépp daal ñii la ñoom seen bopp ñoo ko liggéey jaarale ko ci ab sëriñ boo xam ne maanaam moom la dajal ci ab station sëriñ ba jox ko ab butéel boo xamante ni maanaam meew la def bi mu ko naanee la tàggoo ak ma moom Samba saw si biir yéenekaay gi ni ki démb ca tribunalum Ndakaaru daa dinay wax ne bi mu duggee ci biir néeg Fatoumata Makhtar Ndiaye daa di nag yor paaka bi mu ñëwee la ko sës ci coiffeuse bi génne paaka bi ñàdd ko rendi ko yée yéenekaay gi de la turbine mu ñu en tout cas mooy nag Samba Sow kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko daal di nay doy waar genn xeetu doy waar goo xam ne fu ko waaye natt daan na koy passé journal bi mu ñu xamal la ñu doomu Fatoumata Makhtar njaay bi di Adama ni ki démb moom nag daat nañu koy déglu taxaw na ca kanamu baar ba la mu xamle nee na Samba Sow si boppam moo rey yaayam mu juge sax moom Adama doomu Fatoumata Makhtar Ndiaye bi dafa jooya jooya jooy ba sonn ni ki démb maanaam ca tribunal ba moom ci boppam la mu xamle nee na nag Samba Sow sax da koo bëggoon a rey ko ndax xam na ne moom nag maanaam mooy seede bi gën a wër yéen a kaay gi de la turbine mu ñu xamalal ñu Samba Sow ci boppam démb yëngal na tribunalum Ndakaaru su ngeen bëggee dégg dëgg yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamalal ñu procureur nag ni ki démb amul lenn loo xamante ni daal maanaam doxal na ko ni yërmande jëmale ko ci Samba ndax nag procureur bi sax nee na Samba Sow mi dafa yarwul ku réew la waaye nag dañu ko war a tëj li de ci ak dundam gi yëpp yëpp yëpp journal bi ci néegu Fatoumata Maxtaar ngir nag sàcc fa trois cent mille yi nga xam ne maanaam moom la ñuy wax ndax moom nee na su bëggoon a sàcc Fatoumata Maxtaar Njaay ay millions la koy sàcc ndax lim ko yónni ay millions ci banque daat nay bari loola journal bi di Vox Populi mu ñu xamalaan ñu Samba Sow daa di nay taqal nag responsable APR yi nekk ci Pikina yéen kaay gi di Source A mu ñu xamalaan ñu Samba Sow li mu wax daat nay doy waar moom nag nee na benn sëriñ ci boppam moo ko liggéey te awañaa bokk na si ñi ko defloo mbir moomee nee na sax oh ëpp naa wax ndax nee na deret ji nga xamante ni moo tukkee ci Fatoumata Makhtar Ndiaye sëriñ bi da ko ko jox mu daal di koy naan avocat yi nga xam ne ñooy layel Fatoumata Makhtar Ndiaye ñoom nag ñoo ngi sàkku lu toll ci cinq cent millions Samba Sow ci biir journal bi di Vox Populi nee na nag li nga xamante ni wax nañu ko ci procès verbaux yi maanaam dara du ci dëgg ndax ñi nga xam ne ñooy waa police ay corrompu lañ maanaam dañu leen a gera waa grand place ñoom nag la ñu xam ne nee na Samba mi ak kàddu yi nga xam ne daal nag yëkkati maanaam lu wér politique moo xew wala Samba Sow li mu wax ni ay kàcc la wala Samba Sow mi est-ce que nag réellement Samba Sow mi ànd na ak sagoma yéen a kaay gii di libération mu ñu xamalaan ñu en tout cas li am ba moom Samba Sow ni ki démb ca tribunalum Dakar wax na fa ay wax yu bare yoo xamante ni maanaam daal amul bopp amul génn journal bi du Sud Quotidien mu ñu xamalaan ñu li am ba des daal procureur na nañu ko tëj li des ci ak dundam waaye nag délibéré gi jàpp nañ ko 21 janvier bi ñu dëgmal réew mi Quotidien daal di ñu yóbbu diwaanu Mbuur ci nappkat yi nga xam ne ñoo doon giita ngaas ak policiers yi ñooñu nag tëj nañ leen niki démb benn weeru kaso Assane Samb ci yéenekaayu groupe Promo Consulting bi nee na nag noppi gi Idrissa Seck noppi jaaxal na askanu Sénégal ndax Idrissa Seck nag découragé wul sax ci lu jëm ci mbirum politique yéenekaay gii di Vox Populi ñu fekk fa Mamadou Lamine Diallo bu tekki la mu xamle nee na askanu Sénégal ci boppam dafa am loo xamante ni xamuñu ko ci dialogue politique bi ay caaxaan la dialogue politique bi ak i dil ñi nga xam ne Macky Sall tànn na leen ci commission yi ñu nekk ci ay membre ñooñu saa sunu dajaloo rek kenn ku nekk jox nañ ko fukk ci ay millions lii may wax nag ay xibaar yu wér laa ci am waaye li am ba des mooy li am ci dialogue national bi la Sénégal yi xamagu la kàddu yi Mamadou Lamine Diallo la bu tekki ba tey ci biir journal bii di Vox Populi l'Observateur ak Stades mu ñu xamalaan ñu Ballon d'Or 2019 Sadio Mané daal dina koy jël Égypte la ko jëlee journal bi mu ñu xamalaan ñu Riyad Mahrez ak Moussa ñoom nag ñëwuñu woon ca xumbutëga waaye teewul nag xumboon na loola 17 ans ginnaaw El Hadji Ousseynou Diouf Sadio maane nag daal ne koy jël njiit réew mi di Macky Sall di ko jaajëfal askanu Sénégal am kontante Sadio Mané ci journal bi ne maa leen ko digoon andil naa leen ko le témoin mu ñu xamal naan ñu bàmbaali ba Égypte journal bi di Libération ñu fekk fa imam bi nga xamante ni mooy jiite ci jumaay Liverpool ji la moo xam le ne ne Sadio Mané daf ko mérité ba pare ku modeste la Sadio Mané sax léeg-léeg bu ñuy raxas toilette yi maanaam duusi jumaa ji Sadio Mané day ñëw di ñu jàppale ba tey ci biir journal bi mu ñu xamal naan ñu moom la ñu tabb meilleure équipe Bel Mahdi di entraîneur u Algérie nekk meilleur entraîneur ki nga xamante ni nag mooy Riyad Mahrez moo dugal bii bi gën a rafet équipe bii bi Gana Gueye Koulibaly ak Sadio Mané daal nañ siy bokk Alain Giresse ci ne man maa njëkk a wax ne Sadio Mané dina nekk Ballon d'Or yéen a si gii di Sud Quotidien mu xëy nag tuddee Sadio Mané roi d'Afrique